Euh, di leen jaajëfal bu baax si ànd gi nga xam yéen nga nañu si émission yaru ak yare émission boo xam ni ko baaxoo di waxee dafa ñëw ngir taxaw euh, ci lépp luy sàmm daara lépp luy aar daara luy tax ñooñ daara ñoŋ ak luy tax ñu mën a jekku téere borom bi tabaaraka taala ba mën koo jàngale ci anam gam gën a mate gën a rafet luy yaru ak yare waaye nag di sant bu baax a baax euh, ñi nga xam ne ñooñu jàpp ndalal liggéey bi muy c 3 ki nekk si bopp bi di Alaaji Sëriñ segg ak euh, Serigne Mouhamadou Fadil Seck mi nga xamante si ni moom mooy euh, taxaw lépp loo xam moo jëm ci euh, yaatal mbind alquran waaye itam di dox yeneen yu bare bari yoo xam dafa yitteel lu jëm ci alquran biir ak biti lu ko siyaar bu waaye di siyaar itam mboolem ñi nga xam dañuy liggéey ci biir kër gi di siyaar ak ndokkeel itam ñi nga xam ñoom lañu bokkal liggéey bi ànd ak ñoom liggéey bi di ko taxaw saa su ne jiital sëñ Maxtaar Kebe moom Cheikh Salim Mbacke ko jaajëfal bu baax di ko ñaanal ci euh, xam-xam bu bari bi macha allah ak bu leer bi euh, yàlla gën koo caa defal ay ndam di la te barkeel ko ñaan rek tey ànd nag macha allah ndam yi gën a bari te gën a jëm kanam te rafet na si jot tam di siyaaru baax tam suñu mbokk daara euh, suñu Omar si mi nga xam ne bu jàllee moom la ñuy àndal ci mission boole mu muy émission am solo nag boo xam ne mbool yooyu addina bi ñu ngi koy topp nag set na nga jot ay réaction xam naa ginnaaw bi sax danañ si ñëw ci anam mu gën a yaatoo waaye di siyaar tam suñu technicien bi ñu àndal saa su ne muy di ko jaajëfal bu baax di ko ndokkal si liggéey bu am solo bi xam naa bala ñoo dugg ci tomb bi dañuy jox sëñ Maxtaar Kébé mu ngi sëñ Maxtaar asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëriñ Mbàkke Suran sama mbokk daara maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di nuyu waa C3S ka ca boobu di alaaj Seck sëriñ Fàllu sëñ Daam mboolem personnel bi ñu nekk ci biir euh, réew mi ak ñu nekk bitim réew di leen siyaare nag bu baax di santit cant goo xam ne sama cantu bopp la jëm ci direction bi ak ñi ciy liggéey ñu xew-xew bu ma amoon bu jàmm muy alxuraan ak xasida bu ma doon def fële ca Touba seen taxawaay ñëw ca ci anam yu yéeme kon maa ngi sant alaaji sëriñ sëñ Fallou ak sëñ Daam ak personnel bu seet waa sis ñëpp bàyyiwuma kenn di la nuyu sëñ Mbàkke day nuyu sëriñ Amar Silla mi nga xam ne moom lañu war a ànd léegi ci kanam waaye di nuyu sañ Moustapha Sarr mi nga xam ne mooy taxaw taxaw liggéey bi ci anam yu rafet di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci anam yu yaatu di ñu bàyyi xelit ñu am ci ñoom contentement bu wér ndax nit bu dee def dara ki koy topp mooy xam ba xam loola luñ ca war a yokk wala luñ ca war a wàññ am na bokk yoo xam ne maa ngi leen di sant bu baax ci ni nga ko waxee woon ci fan yi ci ginnaaw mooy bi ñuy wat ba te bàyyi woon wat ba fa deexa ñëwee ñu ngi leen di sant ndax loolu mooy tegtal na ñoom ndekete mbir mi itteel na leen ñu ngi ciy topp ci seeni xel waaye ñi ngi ciy topp ci seenu xam loolu day dimbale imaam yonent bi saa daan wax naan li yelli yee nii ulun nuha borom xel yi nañ toog ci sama wet mm-hmm. lu ci sikk ci julli gi ñu mën koo def moo tax ñu ne imaam fu mu taxawee ñi sës ci moom rëkk ñoom dañoo war a doon ñu xam dara ci julli ga kon ñoom itam bañ toppee émission bi ba génnee ci wat dafa den jooju ak cant bu rëy la ci ñoom xam naa xissa bi ci am te xorom mm-hmm. eh, mooy sëñ daara ba amee ay gan di topp téere ba te gan ña waxtaanoo fàbbi ko ngóor si tàmbalee wattuuri taaruwu ko bi mu toppee ba nag gis sëñ daara yi xoolante mën a ne ah tuuti kon ma juum wattuuri taara tóor bañ bantaaratiin kon ñoom itam ñu ngi leen sant bu baax a baax di sant itam bokk jullit ak bokki taalib yëpp seen bokk seen xarit Mokhtar Kébé Cheikh Salih xam naa boobu sax xam naa boo ñëwaatee ci émission boole bi xam naa danga si taxawaat xam naa numéro numéro numéro un ñëwaat incha allah tey nag mbokk yi euh, ñu ñëw ak yéen ci ni ñu ko waxoon ci njëlbeen rek ci tomb bu solo boo xam ne dana ay ñu jàngal ko ci jàngal mm-hmm. di laaj xam-xam waaye laaj xaritam waaye lépp na jubluwaay bi comme ni ñu ko waxoon rek muy jëm ci wàllu labyrinthe ku ne xam ne ni daara dafay aajowoo ay ndimbal su fekkee ne borom daara ji jëmtukaay yi matul tam am pas-pasu jàngale ndimbal yooyu nag léeg-léeg dafay bàyyi koo ci ay gox yu fasanti ko da leen gis nit koo xam ni yàlla daf ko dénk mu am am am mu yëkkati si am amam am lim bu yaatu teg ko si ay loxo nañ ko séddalee nañ daara léeg-léeg nga gis nit koo xam ni jëm ci wàll li ñuy jëfandikoo la moo xam ceeb la wala lu ci aju mu yëkkati si lim boo xam ni dana bari lool waaye tegaat ko si ay loxo itam ngir mu dem si ñun daara waaye ci biir euh, jëfin woowu léeg-léeg ñu gis si nag yu bare bari yoo xam ni euh, dëgg la jafe naa teg si aw yoon waaye nag yiñ si mën a yiñ si yi si aaja jubbanti dafay dafay dafay dafay bari lool daanaka loolu mooy soo dañu war a waxtaane ak li fay aju nag ci euh, ay détails waaye ñoo xam ne itam waxtaane gi wax dañ koy waxtaane pour ay principe waaye waxtaane wuñ ko pour bokk ci groupe yi nga xam ne fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idaahum yasxatun buñ leen joxee ñu ne méeg buñ leen joxul ñu wax ba ñëpp dégg leen maanaam xeexe wuñ ci di réglé wuñ mbir mi ni ci ci ci noonu dañ koy réglé pour ay principe nga xam ne kenn ku ne li nga xam ne moom nga yellool euh, nga jot sa na nga si war a jotee kenn ko ne tam boo jàpp ne lii yëllowoo ko ñu xam ne yëllowoo ko ñu jox ko ñu ko yelloo loolu si maxsaar boo doon dugg si bunt boobu tàmbalee ko si ak maandu nan la ko lislaam gisee ci ci taxawaay boo xamante ni bu ko nit ki defee mën naa baax si moom waaye bu ko defee itam am daan yu bare bari du koy xaar lan mooy ak maandu ci wàllu sëdd jërëjëf sëriñ Mbàkke andi nga li ak so soal wajji laaj am solo ndax baatub maandu mooy bunt bi nga mën a jaare situation yi nit ñiy dund yépp réglé bu dee commerce bu dee mbay bu dee napp lépp lu maandu amut loolu dana mujj ci faw boo muy sabotage te bu sabotage xase ba am ki daan am dana ñàkk ki xañoo nit gën a ñàkk foofu moo mat a bàyyi xel buñ ne indi nañ fii nangam ñu ngi koy séddalee kenn ku ne ñu teg ci sa kanam nangam mu war a dee ci sa wàll da jóg sol say dàll nànk dem te dee su la dégg waaye bu mel ne ne séddale ba gaynde ne bukkeeg euh, till kaay leen ñu génnee suñ gouvernement bi ci royaume yóbbu ko ci république loolu gaynde wax maanaam man rek maa fi buur daal laa bëgg mu jeex affaire bi ñu seddoo ko normal président am vice président am population am ministère de nangam am. bi mu ko waxee gars yi ñëw toog mu ne lu ci seen xalaat ki njëkk a wax ci rabi àll yi ne ko son excellence monsieur Gaynde da ngay da ngay doon président bi mu ne ko wax mu ne ko man may sa vice président mu ne ko waaw mu ne ko diw mii itam di sa ministère de l'intérieur diw mi di sa ministère des finances gaynde na gees na ko rëkk faaj mu faatu fi saasi moom vice président moom vice président daal ni war ki ci des wax loolu ay propos rek la ay propos la mu rey maam nommé guñ hmm. mu nekk ci des yow waxale yow di mu ne ko son excellence da ngay doon président hmm. gaynde na ko mu ne sa soxna di vice président sa soxna su tedd si hmm. mu ne ko waaw mu ne ko sa doom ju baax ji yore finance bi mu ne ko waaye yow mii sa xalaat bu rafet bi foo ko jëlee mu ne ko bi ñu defee léegi conseil des ministres ci laa ko comprendre <laughs> conseil des ministres bi ñu def léegi waxtaan bi. ba sama mbokk nee nañ ci laa ko xam ne ko foo ko mu ne ko léegi laa ko dégg. am lépp ci jataay lépp ci benn séance bi. ñu koy déggee sëñ bi ginnaaw nit ki moom nee na naa doon man saa xarit bi di bokk ci ak saa kii ñu xam ñi ci des ñëpp est-ce que loolu nekkul. xismatun diisa kon benn ngoog ci. wàllu rabi àll yi ñu lépp ci bi ki des maandute foo ko fekk kañ lañ koy xam ba lépp dee dox ci norme soxla wuñ maandute kenn ku ne tëye nga la nga yor yaa ngi xam li ngay def yaa ngi xam li ngay wax ana maandute soxla wuñ maandute la shaari boo xam ne xat kuntu ahju aba amrin aha thiqatin mm-hmm. kañ laa ko xam ne xata alamat bi naa yow mu limmaati bi problème amee laa door a xam ndekkete waa ji amul confiance mu ne waxaat ko xat kuntu axjo aba amrin mm-hmm. waaw foogoon naa ne ki ñuy wax abo amr mm-hmm. axaa fiqatin ku wóor la ma mm-hmm. wéy ci erreur boobu jàppe ko ku wóor xata alam mat bi naa yowman mu limmaati bañ amee problème laa door a xam ku wóor dee ngi nii moo tax maandu te toujours bu dara xewul bu jàmm dee am daal doo du fay doo ko mas a dégg bu problème amee nag ah, waaw parce balaas la balaas bala ngaa am loo bala ngaa loo dee balaas amoo loo peese ba bu justice taxawee ne kii ak kii ñaari plateau la plateau caaxaan ak plateau dëgg ñooy xeex mais bu fekkee plateau caaxaan amu fa palaato dëgg doo nga fa ne. mais loolu loolu kon loolu tombee na ak li li la waa la léppkat ba waxoon. léppkat bi nee na bala ngaa xàmmee góor euh, nga nga nga nga rey aw nag war ko séddale wala nga woote séddale ma xaalis. ok euh, si léegi nga xam góor yi ak jaam yi. dafa am benn abo saxaabi bu ñuy wax Abu Burdata. maa ngi ci. jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu fa maandu meloon sëñ Mbàkke aboo burdata tabaski day jub yonent bi jox ko nangami junni xam bu koy jox moroomi saxaaba tey bu doon léegi mën a jàngalekat bi di jox moroomi jàngalekatam di ko séddale di ko séddale ba li ba xar ya jeex mu dugg ci béyee di ko séddale ba béy wa fa des sax mu juróomi yenti at mm-hmm. mu ñëw ne yonent bi saa mu ne ko noo def mu ne ko séddale naa lépp mu ne ko yow nag mu ne ko man nag bi ma tàmbalee di séddale sama gaay yi laa gën a yéene ko sama bopp ba ma yoroon lépp jox naa leen mu ne ko la fa des mu ne ko xanaa bëy wu amul lu juróomi yetti weer wala juróomi yent yont bi ne ko danaa la ko daganalal nga nga tabaski ci yow ndax sa effort bi. maam bu xaas sa pour moom. xaas sa tam pour effort bi mu def. mais keneen bu ko defal. may sama kenn mu def ko. xam nga li tax ñu may li tax ñu moom ci loolu. mooy jëf ju rëy ji jëf bu seqee ak ci moroom wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa saa tool ba. maa ngi yow ko bokk seen morom maanaam daal jox seen jox seen morom. moo leen gënal jox seen bopp. ak lu mu parce que su situation bu compliqué la nag. Mhm. ndax ñee dañoo ñëwoon ñi ñu bari fekk si ñu bari. Mhm. ñii li ñu yor xëy na daa yem ci ñoom. Mhm. beneen lim nar caa dolli ko waat andi leen ay fere. bu dee léegi da nga naan fii man kat wax dëgg sama compte bi un million doo nga ci ne. borom tool bi waaw su ma ko su ma ko bokkee waa ji day jeex. ñoom nag bi te aaxii euh, boobu bi leen mbokkalee ba noppi. kenn ku nekk dana sa morom am naa nangami hectare ci digg bi am naa nangami fas ca digg ba am naa nangami nag ca digg ba séddale lépp ba mu yem kon loolu ñooñu emu itaar lu dul ci seen morom lañ ko am moo tax Seydina Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu yebal na benn gouverneur ca Saam kooku mooy président de la république foofu ba mu fa nekkee nefa nefa ba bis ab délégation jóge saam ñëw ci Omar Omar ne leen damaa bëgg bu ngeen demee seen dëkk ngeen bindal ma way ñàkk ña ci liste su ëllëgatee suñu joxatee asaka yi mën leen cee jox ba mu doy bañ demee di bind way ñàkk ya gouverneur mooy premier un ku ñàkk ca dëkk ba maanaam gouverneur ki jiite ki jiite lépp moo fa gën a ñàkk ñu topp liste ba ba ca këjam mujj ñu indil ko Omar mu Omar ne waa de kii kan la ñu ne ko kii mooy diw mu ne diw maa fa fal jaraaf la ñu ne ko waaw mu ne nu mu ba ngeen di ko boole di ko am na ngeen ko bëgg wutal xaalis ah, moom day wax dëgg ñu moo fa gën a ca way ñàkk yàlla bokk Omar leen wol leen ma ko fekk kat li tax mu bindu lu way ñàkk ña dafa am ñu fa ñëwoon di kalaame si naan Omar sa sa jaraaf ja buy xëy si buy xëy si 9 lay xëy si te 8 la war a xëy si. xëy suul heure xëy suul heure bi ki des ajjuma kenn mënu koo teg bët bi ki des à partir de 20 heures boo demee këram ñu la tëjoon looloo ñu ci naqar. kilifa la ko kenn mënut a teg bët daal waaw. Omar ne leen nag yéen seen dëkk nu mel ñu ne ko ah am na fu ñu amul dara ndax ñun ñi ci lañ mu ne leen benn bu ngeen bind ngeen bind liste bañ demee ba ñuy bind liste ba nag gouverneur général mooy première ku gën a ñàkk ci dëkk Omar bi ñu ko indilee liste bi mu xool ko ne lii nu mën a amee demal leen ngeen woon ma gouverneur mu ñëw taxaw nekk mu ñëw mu ne ko xam nga sa gars yi mu ne ko ñii de sama waa kër sama waa dëkk mu ne ko dañ fay ñëw nag di la kalaame ci 9h ngay xëy si 20h ngay tëdd ajjuma doo doo jaar ca barab ba waaye li ma jaaxal na bu ñu liggéeyantee loolu ba noppi nag. damaa gis saw fii ci première nga nga gën a ñàkk ci dëkk ba ñett ñeenti question yi laa lay laaj da nga tontu ko seen kanam mu ne ko xëy si gi neuf mu ne ko ah mu ne ko aw ma mbindaan maay sama mbindaanu soxna maa koy jàppale ca bale ga raxas ndab ba mu rosi ma door a ñëw ma lu ma fayee na ko benn tëdd gi vingt heures mu ne su ma xëyee nag su ma xasee ba xëy si neuf ci seeni soxla laay nekk ba vingt ma dem ci sama soxlay borom ba ba ba neuf jooju damay dundal guddi gi mu ne ko ajuma ji ne mu ne ko menn mbubb laa am su ma ko fóotee bésub ajuma du ma mën a ñëw moo tax may toog di ko fóotal saa bopp te dugg ci sama biir néeg bu woowee nag ak ah, gaaw ma doon xëy koo xam ne responsabilité yooyu yëpp moom moo ko jiite ko jiite daal di jooy ne ko société bu jógee ci société bi yonent bi ñi lay mel jox ñépp fàtte sa bopp loo xam ne lu war a yaatu su ñu séddale loolu noonu ngay mel Yuusuf as-Siddiq saaru lëm la ci alquran bi mu ne ij'alni ala xasaa'ini al-ardi inni xafidun alim loolu wax buur bi jox ma budget ñaar rek am soxla ci budget xifdu ak aaral alal ji te bala ngaa aal alal ji nag na nga xam ñaata la ilm bi mooy xam budget bi ñaata la xifdu bi mooy ku ci yàlla ko ne nga jox ko ci kenn ku ne rek li nga ci soxla nga jox ko ko te bañ a ëppalal ca kee di wàññi ca kee xifdu ak ilmu foofu lay tënk Yuusuf bi ko bi ko bi ko buur bi di jox budget dafa xawoon a am yaram bi mu yoree budget trois mois jeex ba buy jullee nga mën a wàññi faar yi ñu ne ko waa yow lii mel na dalaa waroon a yokk doole faral mel na dalaa bëgg ay néewal kàttan mu ne leen damaa bëgg di mos xiif ak mar ba bu ma gisatee ku ne dama xiif ma xam li mu wax su ma gisatee ku ne damaa mar ma xam li mu wax te loolu mënu ma koo def lu dul nag delloo si sama bopp ci situation bi ñuy di tudd mooy di xiif di mar. waaw mais loolu dafa wut ak environnement bi léegi mu daa mel bu ñu la falee daa gën a géey léegi. dëgguma la dafa am benn ci Angleterre. benn waay bu am yaram. ak benn waay bu tuuti. ñu dajee ensemble. ki ki am yaram ne ki tuuti yow de da yàq suñu deru réew mi mu ne ko yaa ma dàq gën a yaa ma gën a mën a yàq suñu deru réew mi léegi ñu ne ku rëy ki laajal ku ndaw ki lu tax nga ne da ngay yàq sa dero réew mu ne ko tax lu tax nga mu ne day yàq dér mu ne ko sa rëyaay bi ku la gis xam ne alali jaamul nga lekk sama tuutaay bi ku ma gis xam ne man dañ maa xañ li ma war a lekk. am kenn si ñoom ñaar <laughs> maanaam kii kii kii jël lu moom ak kii xam na lu moom. te kat kenn ko ne ngaa wax sa morom ne ko yow sa tuutaay bi a moo gën a a a yàq suñu dër bi euh, mais mm-hmm. gis ni boo yoree pouvoir mm-hmm. maanaam ni nga siy doxee mm-hmm. maanaam sago ji nga xam daana si situation lépp day changé da gis ne l'islam principe bi mu am ci buñ la falee ak boo waree séddale ni nga mel loolu jullit war nañ say jàng ay jullit yu am solo baatu islam day baat boo xam ne dafa am madd loolu baat bi dafa am lu muy tekki mëdd loolu boobu am mutaabiq dafa war a dëppoo ak jikko ji muy tekki ma jox la ci benn exemple bu gàtt dafa am benn sëfooru kaar kaar kaar kaar mooy yi daw ci biir euh, dëkk bi yéefar bi bëgg naa natt waa lislaam ba xam seen diine ji dëgg la wala du dëkk saa yu liggéey jox receveur bi cinq cent francs mor koo delloo deux cent francs bu àggee ci arrêt bala ko delloo rek mu gaaw wàcc di ko def di ko def ba mat at benn jour mu dugg chauffeur bi di ko séen ne ko sëñ bi dama laa soxla yow boo àggi sa aree nag ma ko wax waa ji àgg ne ko maa ngi wàcc mu ne mu daal di yëkkat deux cent francs at ma nam toll lépp jox ko mu ne ko luy lii mu ne ko saa yoo fi duggee sama kaar sa deux cent francs yi nga fi fàtte suñu lislaam ji day bañ ma lekk waaye daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wahdahu la sharika kon kon kóolute àdd la mooy imaadu kulli amrin asaasul mulki ak moo tax foofu kon suñu borom ne yonent bi saa sallam moo ko wax ci xadis mu ne inna al muqsitina inda tamaam bu ëllëgatee yàlla daf ca wetam wutal leen ay xayma ñu toog ndax lan maanute gi ñu maan woon te yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina lillahi shuhada bil la nit di jànge ab aaya dégg aaya boobu marqué wu ko ba muy jël loo xam ne aaya bi da koy xañ maanaam jikkoom da koy xañ njubug njubug aaya bi jikko ji nar koo xañ njubug bi subaat bëggee tax mu dëgg masala dëgg masala mooy lim doon doo ko doo ko jëfe wala par par loo tax mu dëgg masala su boobaa masala bi lim doon doo ko koo koonu la wax yéen ñëpp. waaw ñëpp dugg si biir koonu xawaamiin même même même même sax bu fekkee da ngay séddale même nga xam ni kii du sa xarit xëy na jaxasoo leen waaye yëngal mi ngi si mi mi mi ngi si yoon mi ngi def lim war a def su boobaa ñàkk di nga ko ñàkk xam wala li am di dox seen diggante si awtik waroo si basé wu tax nga bañ ko jox wala ay jëriñ mën na ko. shana'aanu qawmin sayyidinaa Umar ibn Xattaab dafa doon amir bu yeewu mu war gëlee moom guddi tolloog diggante timis ak gee. mu fekk soxna su nekk ca peggu dëkk ba na nuyu ko ne ko maam nanga def mu ne ko ah maa ngi fi nii rek mu ne ko maam loo xam ci Omar mu ne ko Omar bu ma ko tuddal de hmm. mu ne ko lu mu def mu ne ko damaa xam ne Omar yore xilaafa gi ma nekk fii ak saay moroom di daj lu nekk te Omar yëgunu Omar ne ko maam dalaa xamut mu ne ko Omar kon lu muy def fii ginnaaw moom penkook soow lañ ko atteloo man may asoxna su nekk ci biir dëkk bi képp mu tàmbali maa fàtte xaat kon ki kiy séddale bu mu fàtte kenn. lu jafe la maam lu jafe la nag. lu jafe la Omar daal di jooy dem ca dëkk ba andil maam ja la ko la lépp feeg muy faatu kon séddale amul tànn sa bala neex tànn bi neex séddale bi neex séddale mooy kenn ku ne ki am téeméeri nit ku nekk xam na ni mooy ëpp le séddale ba ki am juróom fukki nit ki am juróom nit ku nekk xam ne mooy ëpple ca séddale ba ki am ñaar fukki nit. borom ñaar fukki nit ñi ku ne xam ne mooy ëpp ki séddale ba xëy na borom fukki nit loolu mooy kemt laayal xasabal aadaat kem nombre yi. waaw ndax day métti daal ndax dangay gis ni léeg-léeg nga jël ko jox ko nit mu bëgg a sàmmonte ak yoon waaye dafay jafe pour mu pour mu pour mu def ndax ñi taxaw bëgg laaj dañuy bari te itam mun mun ta jox ñëpp te kooku nag li ko doon arrangé rek moom mu jël mbir mi teg ko ci aw yoon fu mu yam rek mu xam ne moom même bëgg nit ñi meree wala ñu jéppi ko moom dàkk na ngërëmul suñu borom taala te boo gisee li sax ma wax la ko dama si day dafa dafay am masalan bu dee lu mel ni daara yalwaan tey nga ne da nga rek damay jox exemple nga dem Touba nga ne daara yalwaan yi jox nañ leen dix dem daara Sëñ Maxtaar jox ko vingt chaque mhm. dem Sëñ Omar Sylla jox ko dix ñëw ci Sëñ Mbàkke jox ko quinze te boo xoolee ëpp lente gi ñu ëpp lente si ab lim ñoom ñëpp seen i donga dañuy yalwaan nga xam day mel ni yow bi ngay séddale ay kër nga waroon a jox maam daa waroon a kër gu ne nga jox ko juróomi saak parce que mm. waa kër la waaye boo xoolee si nombre daara ji man ngaa trompé wu parce que ñoom ñëpp seen daara dañuy maam donga dañuy yalwaan nga xam day mel la ñuy joxe waa kër gi la kon day mel ni bi ñuy séddale séddale lépp waa kër lañu waroon a joxe mm-hmm. te loolu day am ba tey si biir mm-hmm. internat nga gis koo xam ne dafay am nombre deux cent personnes jox ko vingt saak gis koo xam ne dafa am maanaam euh, cinquante élèves mm-hmm. jox ko nangam te boo xoolee ki ëpp ab ab nombre xëy na mooy yamuy am pour doxal daaram ki ki néew ab nombre amul mooy pour doxal daaram est-ce que kon bu ñuy séddale séddale gi mun lu yam ñu xam daara yi ñuy registré ñaata la ñoo xam ne daara yi lañuy ñuy joxe bu ñuy séddale ñëpp am tolloo la dëgg ma la sëñ Mbàkke ab séddale daa tudd ab séddale mi ngi yem ci jox nit ki mooy jox jox nit ki mooy am naa dañu bëgg a séddale nag mooy amaguma amoon waaye bu ñu bu ma xasee ba am moom séddal tuñ ma damaa séddu ba pare séddalee tuñ ma bu ñuy bu ñu nee 5 ton a ngi ci Sénégal ci ceeb kon loolu lañuy bëgg a sédd 5 tonnes yooyu bala ñoo baase wu ci nombaru daara sax léegi dañoo war a xool. recensé recensé lan moo tax ñun duñu recensé dañu seet seen sëñ Bakary moom nañ ko yóbbu 20 tonnes maxtaar bi nañ ko yóbbu 2 tonnes 5 tonnes. te loolu sax yow mi yow mi koy wax xamoo ba xam suñu mbàkke ñaari soxna la wala benn wala ab célibataire léeg-léeg sax nga gis ko xam daara am si cartable am la nekk maanaam day wëree la moom di dem si bureau yi maanaam fi mu doon ni moom la muy séddu yow mi yor daara sax doo ko sédd su boobaa nag kon léegi li ñuy séddale ñëpp na ca ñëpp tolloo leneen lu waaye mën a lijjanti sa bopp su su fekkee ba nga cee ba nga cee dem yóbbu woo turu kenn yóbbu woo sant kenn loolu soo ko amee sa wërsëg la xëy na xos risqaka loolu mooy maanute moo tax benn borom xam-xam lu mu waxoon daa am solo dane ñii jàngale ñoo ëpp problème ñëpp ñu ne ko ndax lan mu ne li ñuy wax ci seen gimiñ yi bis bu jëf jotee te defuñu ko ñoo jam seen bopp te jam-jamu làmmiñ moo gën a bon jam-jamu paaka macha allah moo tax benn borom xam waxoon waa ji na nga jàngale te bul wax mu ne ko nu koy defee mu ne ko na mel ne jàng te bañ a mbapp mbappi rek melal ne jàng sa Matar macha allah loolu am na solo ndax it boo gisee ñu indi ko itam dafay nekk lu ama am solo ndax saa su daara daf koy daf koy daf koy yittewoo ndax ñi nga xam ne dañuy coobarewu di jël seeni alal di ko def si daara ñu koy dénk itam dañu leen a itam dañuy def seen kem kattan ci séddale léegi waaye léeg-léeg dana xaw a jafe lool ci ci ñoom itam ñu def ko ni ñu ko war a defee ndax ay problème waaye nag ñoom toujours rek li nga xam ne moom lañ leen di dénk di ko laabire suñu bopp ñoo xam ni bu ñuy waxtaan du ay principe la ñuy waxtaan amul tamit koo xam ne moom la ñuy adressé wax ji waaye day ñëw loo xam ne day nekk loo xam ñëpp dañ ciy dégg kii def dégg ko ki ñuy def looy itam ñu dégg ko nga xam ne kenn ku ne boo jógee di def nag nga def nag defin woo xam ne suñu boom rek tabaaraka taala ngay sédd moom ngay bàyyi xel mooy i'dilu huwa aqrab li taqwa lu mën a xew rek ragalal yàlla taq lam jeexale aaya ba itam mooy wattaqullah parce que inna allaha xabirum bima taamaluun li ngeen di def na ngeen ci ragal yàlla kenn ku ne lam méritool jox ko ko kenn ku ne bu fekkee dafa war a loolu war a dafa war a am ñu xam ne ak ñàkk amam ci ay principe la tege buy am muy am itam ak amam na tegu ci luy wane ni dafa war a am su ko defee yooyu yëpp bu nit ki defee nag la des nag nga xam ne moom yàlla rek moom mooy ki mën a séddale mu juste la say rëcc te ay njub di waa suñu borom dafa ko koy euh, jéggal mel ni mbokk yi loolu mooy li ñu amoon ci waxtu xam naa incha allah mhm. suñu bañoon numéro dana ñëw sofaar foofu pour ko ndax lu yaatu la loo xam ne mën su ko yemale si benn émission waaye yooyu yëpp ay junj la rek pour que nit ñi xam ne maandu lu am solo la ci mbir yëpp kon fii la ñuy yem di leen jox dig daje suñu beneen numéro asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bismillahi rahmani rahim. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون